أجلها كثيرة عللها إن أضحكت بزخرفها قليلا فلقد أبكت أكدارها طويلا bokki jullit yi gannaaw ba nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala noo ngi bal xaq ñépp lu nu yëg ak lu nu yëgul tey balu xaq ñépp lu nu yëg ak lu nu yëgul yàlla na nu yàlla boole jëggal tomb bu ñuy fàttalante dañu koy teg ci benn tomb eh, ñun ñépp xam nañu ne bu ñu tolloo ci fan yi ñu toll ci at muy bëgg a jeex atum ñu mën a doon ak atum lu mën a doon nag at moom fa sunu boroom nee na mooy fukki ak yaar yu nekk bu ñu tolloo fii dañuy gis ne dañuy woote ay xew-xew yu bari yoo xam ne ya cay gën a ràññiku day mel ne day fàtteloo nit ñi ne am at jàll na ci suñu dund ndax am at bari na walla bariwul lu bari la bis yi nga xam ne moom la ñuy yenn di ko fanaan moom lañuy lim ba mu mat weer di ko lim ba mu matum at at yooyu lañuy lim ba naan diw am na fi téeméeri at wala sax ñuy jël misaal ci sayyidina nuuhin alayhi salaam mi nga xam ne yàlla nee na yónni na ko junni at yu yées juróom fukki at juróom-ñeent juróom-ñeent téeméeri at ak juróom fukk day mel ni ku fi yàgg la waaye lan fi yàgg-yàgg mel na ne ku fi musoon a jaar ba mu demeek léegi moo gën a yàgg fuuf lam fi jotoon a mu mel ne nag bu at mi bëgg a jeex rawatina at mii nga xam ne moom lañuy ñuy wàññi ba ren di ci ñaari junni ak fukk ak juróom-ñett day mel ne moom buy jeex moom dañ ko war a gunge ak sigré bokk yi bu ñu xamee ne yàlla sàkkal na nit ku nekk bis bu mu fi bàyyi ko day mel ne bis bu ñu yandu fanaan rek gën nañoo jege dig booba te dig ba du fomm li dem gi bari bari ñi seen dig agsi rek ñooy dem waaye nag bu ko ne jàppee ne moom ki muy gunge nii tey moo ci topp ëllëg àdduna mën na ko bañ a bett kon nañ xam ne am at a nii mu jàll moo xam ne kenn xamut ñaata lañ ñu fi wax ne jóge nañ fi nañ xam ne seenu yaafus taxu leen a dem nun ñu fi nekk suñu des fi du suñu njàmbaar waaye bu ñu delloo gannaaw tuuti ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa am na doomi sayidna omar radiallahu anhuma nee na yonent bi jàpp na ci mbaggam bés loolu bu ñu koy wax day mel ne lu musoon a am te nee na yonent bi moo jàpp ci sama mbagg ne ma yaa abdallah ma ne ko yaa rasulallah mu ne ma àdduna mbaa jàppewoo ko ku fi sax ma ne teg mu ne ma bay boo nga jàppe ko day ni ku jaar ci aw yoon rek di dem bokk yi ku jaar ci aw yoon yoonu nga jaar ci ab dëkk dëkk ba leer naññ rafet lool xumb lool bu mu ko yitteel ndax dëkk bu taxaw ko jóg dafaa jaar di jàll rek nee na ko jàppe lool ndax fi nga fay paasam ak góo li nga war rek moo fa jaar nga ne ko noonu nga jàppe àdduna ka annaka garib kun fi dunya ka annaka garib mooy ab doxandeem rek ci ab dëkk lu dëkk ba naat naat taxu ko fa jóg taxu koo jóg dafaa jaar rek aw aabiru sabil wala romb ab dëkk jam rek <coughs> Abdullah ibn Umar moomu daana faral di dénk njabootam naan leen boo nekkee ci ak ngoon loo ca war a def bu ngoon jotee loo ca war a def bul ne naa bàyyi ba suba ndax xamoo suba nu muy ñëwee boo xëyee it loo war a xëyee xëy ca bul ne naa bàyyi ba kër gi sàdd loolu it daf cay firi waxi yonent bi mu wax ne def leen fexe leen ba màng juróom balaa juróom a dikk juróom yooyu moom la sëñ mag bi way ab xadisu yonent bi sallallahu alayhi mooy boo doonee gone toll ci si digg doole ak ndaw loxo boo tàllal mu tàlli tànk boo tàllal mu tàlli boo bankee mu bank bu loo neexee ne ñokket te doo daal fenn bu loo neexee àgg suuf te doo laal fenn nee na gaawal def ca la nga ca war a def ndax wér ak wéri dañooy ànd léegi tey rek mu tàmbali naan wóomam yi ak tànkam yi walla gisam bi kon ba ngay gis dara sikku ci say gët gaawal xool ca la ca war a xool boo amee ak wér yët ci ak ndaw wér ga ci boppam gaawal def ca la ca war a def ndax wér ndaw dana ko def mag dana ko def waaye wéri di wér ci mën a kon gaawal def ca la nga ca balaa wéri di dikk ñetteel ba mooy soo yoree astuut te wut ko ni nga ko war a wute ba am ko gaawal def ca lu baax la nga ca war a def ndax am ak ñàkk ñoo fi nekk lu ci ne dañuy wuutante yàlla moo ne min kulli shay'in xalaqna zawjayn ñeenteel mooy jamono ji am jot gaawal balaa ñàkk jot a su boobaa soxla yu jëkk ya bëgg fekk yu mujj yi bëgg fekk yu jëkk ya wala yu jëkk ya bëgg a fekk su waaye ba mu ko juróomeele mooy dund gii nga amagus néew tey gunge saa su nekk ñu fi bàyyeekoo di jaala ji na nga xam ne boo nee sigg leen diggaale bu ñu siggee xool la it bis dana ñëw moom la benn borom xam-xam waxoon ne euh, ba muy wut soxna la ko waxoon ay ay bayit yu gudd la way yu gudd la mu ne daa tàllal alal soxna jigéen ja tàllal nangu nee na mu jooy ñu ne ko loo jooy ne damaa xam ne tàllalam bii mu tàllal ma teg ci balaa bankaat loxoom daa jël wàllam ci sama miraasam ba nopp te moo ne ñaan na yàlla yàgg gudd fa nag moom lool ba jaboon moo tax nañ gaaw def ci suñu dundaku si néew liñ ci bëgg a def balaa faatoo dikk mu la suñ mag wax ne waxtanimu xamsan qubaylal xamsi kama bihi amara xayrul insi alayhi afdalu salaatin bi salaam fi alihi wa saxbihi alxurri alkiraam awwaluha alshabaabu qabla alharami wa mithluhu sixatu qabla alsaqami thalithuha alghanaau qabla alfaqri thumma alfaraagu qabla suqlin yasri xaamisuha alxayaatu qabla almawti fa saaricu lilxayri qabla alfawti gaaw leen def lu baax bala moo weesu ndax bokk yi ndaw googu ñu wax yàlla wax na ko ci alquran ne nit ki bu ko bi ko yàlla bindee day jëkk a néew doole lool lu mën nañ ko ko mënal ba yàgg muy mënalaate mënalaate googu nag lu nit ki gudd gudd fan du yàgg day delluwaat fa mu jóge woon lu mën nañ ko ko mënal moo tax bu am at jàllee liñ ci war a dégg rek mooy ñun suñu dig gën naa jege suñu dig nag bu gënee jege mooy dañuy génn àdduna mel ni fuñ jaar jàll rek kon fañ jëm fa la ñuy gën a yàgg fa la ñuy sax ba faaw sax gañ fay sax nag yaari kër a fa am yàlla na ñu yàlla dimbale bañ dem te fa nu gënal mul aljan moo tax am at bu jàllee benn nga mën a yëkkati sa loxo ne man la ma ca war a def def naa ko ca la ma ca man sama kam kattan di réccu nag ba xam dana dellusiwaatam de su fekkee nag waa ji moo gën a xam boppam ñépp xool na xool xool at mi daal xamut lu mu ci def ci lu baax daanaka taxut bunt bi tëje na tuub rek ci sarti tuub yi daje ñu ne tuub na moo tax ku am tuuti li ñuy wax mustaqbal moom la ñuy wax fi euh, avenir ni koy natte nee nañ mooy koo xam ne at yi mu amagun sañ ne ko yaakaaraat nee nañ kooku am na avenir koo xam ne at yi mu sañ ne ko yaakaar ndax gis nañu dund ko ba tey kooku am na avenir bu mu ko yàq bu mu ko yàq <coughs> gannaaw xamul kañ lay dem na ko wóor ne ndund si ko yàlla may lu cher la loo xam ne bu doon jaay dana fekk mu jar bu yàgg kon bu mu ko yàq rikk moo tax bu at jaa jeexee nit war naa xool lim amagoon wàññi ko ci baaraamam ba ay waaraamam ba xam ñaata ko war a dese yàlla rek ko xam waaye nam cay def mooy buy dikk du ko bett junj naa ko at yam jot a am ñaata at la nelaw lépp ay guddeem ñaata at la fo ci ak dundam ñaata waxtuy julli ñoo ko faat loolu ku ne mën na ko xamal boppam yàlla xam na ko mu xam ko waaye man mën naa xam mën naa gën a xam ni tey fàttaliku jamono ji nga xam ne nit ki daa tollu ci ixtidaar di waaj a dem di siin ña mu leer naññ ci kanamam muy geestu loos wi të euh, geestu aw loos koy def waaye fi naan jàkk ja daal mooy fa mu jëm muy gën di leer ci moom yonent bi sallallahu alayhi a ngi nii bu fekkee dem na ba àgg ci di yëg waajtaay woowu ngal la ñun kon ba fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam tolloo day euh, waxu fa dara lu ñu koy nettaleel saaligut ni ko nit ku ñuul di defee léeg-léeg nga xam ne su ñaawee njort ci boppam rek daal di wóolu njaboot bi di dénkaane naan day nax yàlla am na ñoo xam ne dañ naan leen saaligal rek muy wax lu mu bëgg ak lu mu bëggul lépp loolu mooy saalik yonent bi sallallahu alayhi wa nag dundam gépp deeru ca fenn fu muy sàddige waaye ba tolloo ci diggante boobu nee na la ilaha illallah joo xam ne am nañu ko dégg ñu bari mu ne ndekete yoo dee moom am na waajtaayu mu mel nii la muy xam lépp foofu moom ku fa jarul du ko xam bu ñu fay jaar nag yàlla na fekk ñu nekk ci li sooboon suñu borom ak ndigalam moo tax ku at romb rombaat ko rombaat ko bum ko def mbégte na tuub rek te bàyyi néeg niigal néeg niigal mooy naa bàyyi bam naaj bu naajee mu ne naaj bi tàng na na bàyyi ba kër gi set bu kër gi set de mu ne guddi na bu guddee mu ne wóorul loolu ku ne mën na xam boppam moo tax dund si yàlla jox ko si néew li ñu tudd amaana la yàlla daf ñu ko dénk ñu war ko ko delloowaat bu ëllëgee nag luñ ca defoon dañ ñu koy laaj loolu wax yonent bi sallallahu alayhi wa nee na juróomi ngi nii yoo xam ne kenn du jéggi ab jéego yowmal xiyaama di dox jëm fenn te yàlla laaju ko juróomi yi ba ci jiitu mooy sa dund gi ci loo ko jaaxaloon ci lan muy lim fu taxawoon def fa lu mu def dana ko tudd ñépp dégg yawma tubla sarair fu mu def fa lam fa war a def dana ko tudd yaa ma tubla sarair wax ba àggal ñenn ñi ñee ko lool ndax dundam gi dund gu barkeel la ñenn ñi jàq lool ndax xam nañ ne lii muy wax ñoo ko bokkale te léegi de seenam ay dikk ak dundam lu mu ko jeexal an umrihi fii ma afna waaye ak ndawam ci lan la ko ràppal bi mu doonee ndaw di sànni ay tànk di sànni ay loxo lu mbir sew sew mu mën koo xool lu ab yax rëy rëy mu mën koo yëy di lekk léegi di soxlawaat lekk léegi di yeew di nelaw ko jóg ak tàngal aw yaramam danañ ko laaj ba xam sa ndaw googu ci loo ba bi ngay tëlee loo doon def ati ndaw bi li muy néew ne ak alal ji nga yoroon di ko saax-saaxee moo xam mu néew wala mu bari saax-saaxee mooy di ko def ci lu ko jarul rek alal jooju foo ko jële woon mu ne barab sàngam ñu ne loo ci jot a def mu wax loolu it taxawaay boobu lu mat a bàyyi xel la ci ku fa toll wa an maalihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqa waaye lam xamoon na ko si néew ana ci jot a def xam-xam yëmut ci jàng téere yi kese waaye borom métier ak métier mu mën a doon mu diine nangu yàlla dana laaj waa ji ëllëg sa xam-xam boobee ana lu baax la ci jot def ak leneen loo ci jot def muy wax ci kanam nit ñëpp yàlla nay lu baax rek moo tax Abdullah ibn Mas'ud nee na moom daal waxuma la at di jàll muy réccu ak natt boppam waaye réccu dara lu dul jant bu fenk ba so mu xool xool xam ne digg ba mi ngi gën di jege si jant ba moom rëccu na lu teewoon muy bàlle ko lu bari waaye rëccu na yi lu teewoon mu def ca la mu def ca la mu ci jot a defal ak lu baax ku si sax mu yóbbaale ko ko nee daal bu amee lu muy rëccu mooy jant bu fenk moom day rëccu ma mu jot muy rëccu la doon def daaw moo tax bu ñu laajee ci suñu diggante kenn ku nekk digganteem ak saa bu déggee hayya ala salaati yàlla ala falaa lu muy def ci moom ñuy nodd lu lan lay def ci moom bokk yi bu ñu xoolee <clears throat> noddu fajar léeg-léeg ñu noddu ko waa ji yeewu ca ne jar waaye day xoolaat montar bi mu des mu ne ah mën naa fee fëkkaat bët bala ñëw salaatu daat ne far gay jant bi na dàng woowu waxtu moom jàll te du ñëwaat wu ne mel du amaat moroomam mën na ñëwaat waaye wa jàll na la te bu ñu xoolee kii noddi waxtu wu muy jógee këram di dem ci jàkk ja ak lim mën a taseel ci yoon wi yëkkati kàddoom ñépp di ko dégg ñépp ne tekk muy wax ci kaw bokk yi ku xool noddukatu fajar dootoo tala nelaw moo tax julli bu nekk war nay xool bu ñu ne xay yàlla salaa yàlla falaa mu dégg niwuñ asalaatu xayru mi an nawm nga xam ne julli suba jotagul bu fekkee lam fa xalaat mooy ñoddiwaat mbalaanam rek kooku war naa seet boppam moo ne téewul tey da gis mbedd yi ak yoon yi xat lool ñu jëkkante kenn ku nekk bëgg gaaw a jàll moroomam te fuñ jëm dëkk sàngam rek walla ci avion sàngam bi war a décoller léegi waaye doo gis ku ñu taxaw ci buntu jàkka yi di xat-xatloo ñu ubbi ñu gaaw dugg te moo ne duñ la laaj yoon yu gaaw yooyu nga daan doxi dañ ko yeex a laaj yéen a ji la jëkk xool ba xam loo tax a jóg waaye kiy dem di xat-xatloo ci buntu jàkk ji fekk ñu ngi ubbi mu gaaw dugg moom xam nañ la mu fay wuti ñépp mën nañ koo seere te nag kuy bëgg ñu di ko seeral ëllëg nay def lu baax sa di ko wax rek moo tax kuy big ci bis bi mu gënee woon adduna xamul na bis boobu moo koy indil weer yu bari weer yooyu moo koy indil at yu bari at yu bari moo koy wammat bis bu set di ko gën a jegeel bis bi muy faatu moo tax at mu jàll yàlla day ubbi buntub tuub ni mu koy ubbee bis bu set tuub nag mooy rëccu la ci jiitu mooy rëccu xam ne fi mu teg tànkam du fa mu gaaw teggi ko te fas yéene dutu ko fa tegaat mukk am na daal yu bari yu ca aju yoo xam ne ku dem ci waroom xam-xam bu ko laajee dana ko leeral waaye ku ne moo gën a xam boppam moo tax yàlla newoon ci alquran yaa ayyuha alladina amanu dëkk leen tuub tuub nga delluwaat ca nag wala at ngir mu tuub delluwaat ca taxut ñuy wax tuub mooy da koy réccu dootoo ko def mukk ba faw dellu ci teg yéen ñi nga xam ne seeni xol a ngi dund dee leen dëkke tuub rawatina at mu jot wa tuubu ila llahi tawbatan nasuha wa tuubu ila llahi ayuha almuminuun laallakum tuflixuun kon am at a ngi ni jàll na mën nañoo nettali ñun ci suñu bopp suñuy moroomi jaam lan lañ ci nekke wa waaye moom nag ma dem moom ma ñuy xaare ëllëg mu ñëw ñu ñëw mu wax lam nekk lañ nekke woon ci moom shahidun lana aw alayna lanaa nag mooy la nga ci nekk woon lépp nga mën ko wax fépp di yaakaaru pay alayna nag moom muy jot jot jabat jabati di wax li nga nekk woon ci moom wut ay bant di wokk ak ndong ak a capp-cappal di ca amu yoon yàlla mu ci yàlla musal moo tax mag ñi dañoo teeloon a xam àdduna euh, sëñ Falilu Bakke bi muy marsiyaal Maam Mor dafa ne àddunaa ngi nii de su la bégloo cib jant ba ngay xàqtaay ak a tàccu ñu ne lu mu doon nga wax ñépp béglale ko ca guddi ga rek mën na laa indi naqar woo xam ne yaay yaay ñépp moo tax alquran ne woon fal yadxaku qalilan wal yabku kathira kuy ree bu mu kekku na muuñ rek te gaaw fas kanamam mel ni kuy jooy ndax bànneexu àdduna naqarama ko ëpp fuuf ndax bu ñu xoolee fukki at ci ginnaaw rek euh, Sénégal gépp ñi ci seeni xol dund te bëgg lu baax xëyee nañ suba goo xam ne gii euh, kenn du ko fàtte te booba ak tey jii mën na fukki at ak benn muy bisu Cheikh Saliou Mbacké bàyyi ko nga xam ne moom su nit ñi daan xalaat ba jub ko dañuy dëpp ndax defe nañ ne ku Sëñ Tuubaa meññ ak jógeem ci kaw suuf moom mënut am waaye keroon nag la xew ñu bis bu lëndëm loolu bu ñu ko dee wax day mel ni démb dong la te moo ne fukki at ak benn jàll na yoo xam ne ñu ngi ci gën di jege ak fekki ko donte day ñaan yàlla yàlla na gën a yàgg nag yàlla na yeex yàlla na ko yàlla fay ñu teg ca yett ba jëm ñeent tuuti yaar ba yett ëllëg baar mi dëkkoon fii moom itam dem topp ca sëñ Sidi Muxtaar moom it ci fan yii lay amum at mu mel ni démb la ndax tiis ga ak metti ga kon bokk bokk yi atawu noonu moo doon ñëw bañ ne Sëriñ Tuubaa bi mu fi jógee léegi juróom-ñeent fukki at yu teg am at la 1927 at léegi juróom-ñeent fukki at nga xam ne ku ko fekkee woon te xam ke dara sax jafe na ku ko fekkee ca mën caa nettali dara moom man man saa wax ne amatul ña ca topp topp ca ba yi nga xam ne boroom at yu ndaw yi fekk nañ ko te di ko fàttali ko ba léegi kon boobu ñii fi des ñépp yàlla nañu fi gën na jàng ak nun ba mu ne suta ta fàtte yi xew ci at yu mujj yi mu ne su ko farte waaye ñu dem ba xaw koo miis ndax suñ saliwu moom ma tudd léegi am na kenn ci njabootam ba ay bokk demee di ko jaale ji daf ne moom dey fekke na fi ñu mel ni sëriñ Saliou ñu bari ñu fi bàyyi ko fekk na fekk na ko tax xam ràññee waaye lan doon dalal am xelam mooy ku fi bàyyi ko rek ci ñoom la may dalal am xelam mooy ña ña ca des ñu ngi fi waaye nag ba fa sëriñ Saliou sësee moom nee na am xelam du nangu du ñemee jàll du ñemee jàll moo dal ñépp amul kenn ku ñuy xalaat koo xam ne danga naan bu fi bàyyi ko yàlla koy def moom mi ko sañ rek xel door caa dem moo tax ku yàlla dimbali mu mën a nettali tuuti lu mu fekkee